ñaanal jàmm amiin waay di nuyu bu baax a baax a baax soxna Ndeye Pitaw sama xarit sama soppe loo xam ne gëj naa laa gis lool waaye di siyaare bu baax techniciens yi ak ñi nga xam ne rek eh, ñu ngi bàyyi xel émission bi saa su nekk ñu koy ànd ak ñoom xam naa incha allah bu kàddu gi ñëwaatee ci ñun hmm. ñu am waxtaan yi am am solo ci wàllu ñaan yàlla ak nangu ak nangu ñaan ak nangu ci ñaan yan éducation yan yan yan yan yoon la war a jaar bu bëggee yàlla may ko li muy ñaan mm. ndax ñu bari dañuy ñaan te xamuñu nan lañ war a ñaane yàlla ba yàlla man leen a wuyu dëgg jàmm ñu dalal day Petaw Petaw maa nuyu. maa naa la gis. waaye maa ngi nii de. nga am sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah ma bàyyi la. ñu ngi sant yàlla ah, lu tax nga xool. <laughs> gis ni fi mu toll nii tabarkàlla. waaw xam naa xam naa au moins yow nag ngay oo oh, tabarkàlla macha allah <laughs> nuyu naa sama rakk ji. fay naa la bu baax a baax a baax àndaat ak yow rek comme ñu koy defee tous les vendredis si bon ndogu nga xamante ne tabarkàlla macha allah xam ngeen ne ni ñu ko defee koor gi yëpp euh, nga xamante ni tous les vendredis dañu si li euh, ñu dugg si kër diine yi xool ku si nekk chanc baak euh, jëfin ba ak nañu ko moole ba mu yëg si fii nga xam ne loolu la ñuy indi si koor gi defoon nañ ko daaw fekke ko ren ñuy ñaan yàlla di ko def ay at yi ak tam fekk ànd ak wér ak jàmm ak sutura di ñaanal suñu sëriñ bi ñu bokkal plateau ah, Fawzeyni maa ngi lay bu baax a baax moom tamit namoon naa ko géjoon nañu bokk plateau lool di baax baax si koor gi leen baalu ak te di leen baal ak Aïcha wala mm. lay daal di doxal yow mi nga xamante nit ñi bu ñu wooree am 100 yow boo wooree 5 ngay am <laughs> baal naa la <laughs> man lu tax nit ñi ma lu ma xool di ma laaj ndax man maa ngi wóor wala wóoru ma ah, boo wooree si ah. a oom ni comme man waaye ah, baax na yàlla bëri na sutura <laughs> alors ëttu diine yi. tey ci ban këru diine la ñu demoon. voilà Aïcha tey nag dañu dem fii nga xamante ne moom mooy Gueule Tapée bu xam ne. ka fa mhm. góor yàlla bu baax boobu di maam Abdoul Aziz si borom béjjaaw bu rafet ba borom 40 ans euh, si xilaafa Maodo kooku nga xamante ne tey moom lañu demoon. 40 ans zéro faute waaw 40 ans zéro faute nee na nee sax dundam la boo ko mosaan a gis nee na yorul poos jox rek mu joxewaat ko si jaam yi maam Abdoul Aziz si mhm. nga xam mooy Gueule xam ne dafa cëroon pour def ko foo xamante ni jàkka lay doon jumaa lay doon pour jaam yàlla yi di fa julli mu demee ba nga xamante ne mënatul dem jàkkay maam alaaji Maalik ji nekk fële si jeekoo nga xam ne foofu lay jullee ak képp ko am ngànt mm. yàlla def nag mu neseroon ko gannaaw bi fi jógee nag taawam bu baax boobu di Maodo si sëñ Maodo moom nga xam ne moo àggale mébét boobule euh, ba tax ñu demoon fa nag xool ji historique foofu nga xamante mooy kër maam Abdou Aziz si àndoon nañu nag koo xam ne moom moo nekk foofu sa jumaa sa jàkka ja nga xamante ne mooy maam euh, ki nga xamante ne mooy imaam bi ñang euh, di ko ziar bu baax a baax ak ki nga xamante ne doom la sa kër ga muy euh, sëriñ kii nu mu tudd sëñ euh, Lamtooro si ah waaye tamit bi ñu demee fekk nañ fa ki nga xamante ne moo génn àdduna dem muy maam Ousmane Sy caatu maam Abdou mi nga mm-hmm. ci kër ga ndax ndeysaan keroog ba ñuy tourné alxamis alxamis bi del si démb la wàcc liggéey ndax bi ñu ñëwee gisuñu ko sax ñu ngi ziyaaranteeg moom ñu ne yaram bi xaw a sutante ndeysaan démb si guddi nag la wàcc liggéey maam Ousmane muy caatu maam Abdou moom itam ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax nañ dem déglu ji histoire bu kër maam Abdou Aziz si fii si Gueule Tapée ak euh, jumaa ja nga xam ne gannaaw bi mu làkkoo euh, taawam bi di maam Maodo Sy def na ko fa D'accord. yaa ilaahi wajdiyana abadan ala muhammadan al-muxtaar fil qidaami fii nag zaawiya li ñuy wax waaye mën nañu wax zaawiya Cheikhna Tijaani radiyallahu taala anhu Seydil Xaaji Malick si Maodo di taawu Mawlaana maam Cheikh Al Xaaji Abdul Asiis Dabaax radiyallahu taala anhu moom la yàlla atte mu liggéey zawiya bi ak mbokkam yi mu ko àndal yëpp ak mboole mu jullit bi mu noppee it yàlla nattooñu mu teg ñu fi ngir ñu wattul ko ko di imaam bi mën nañu wax nag ne jëmmi sawye bi bii taxaw nii xëy na ay cinq ans lay war a toll waaye nag jiitu na ko ndax naka jëkk fii jàkkale woon li ko sababoo nit mooy góor gu baax gi mosul bëgg a jullee fenn fu dul jàkk yàlla àtte muy jullee sawiye Seydil Xaaji Malik wala muy jullee fii ci sawiye bi nekk fii ci Jekko jamonoy dox ba wérgu yaram ak mageem mayetu ko activité yooyu léeg-léeg sax buñ daan jóge fii ñu baal ma jëm ci jàkkay jekko bala ñoo egg danañu fekk ñoo ñu commencé julli ndax doxam bu yéex waaye buggul jullee fu dul jàkk ci la na waxe ne comme ngànt am na moom mi ngi jullee ci kër gi ak ku am ngànt comme moom walla ku ko mën a wéttale ñu di julli ci kër gi muy lu yàgg lool mu nisiiroon nag terrain bi nekkoon fii pour def ko jàkk yàlla atte mu wuy ji suñu borom te sottiwul wax dëgg yàlla Seydil Xaaji maa ngi si def ci itte ju bari lool xam naa loolu sama nijaay Lam Touré mii moo may gën a xam ci loolu waaye daal alal ju bari lool lool lool la def ci terrain bi la tax mu def ci alal ju bari ñëg lépp mënuñu koo détaillé waaye daal def na ci alal ju bari lool pour jot terrain bi waaye li ma ci mën a fàttali te ñun ñëpp ñu bokk xam mooy li woykat ba waxoon rek waxam jépp moo di kitaabul ilaahi hadiisul rasul Mawlaana maam Seex al Xaaji Abdou Dabakh mosta wax kenn lenn ngir ñarañam boppam moom déedéet lu mu lay wax wala lu muy wax ngir réew mi lépp day doon njariñu jaam ñi di njëriñu doomu aadama yi. li yéeme daf ci am Cheikh xaaja Hadj mu jug dundam Jolof lañ dem dëkku suñu dëkk la sax ñoo ko bokk waaye moom moo fa féete dëkk bu ñuy wax war xoox dafa am kër Cheikh El Hadj Albès mënoo xam ban kër la am waaye boo demee war xoox ñu ne la fii mooy kër Alaaji Abdu waaye bu weesoo boobu amul leneen bàyyiwu fi dara ñu dem fa keroog ba ñuy dem jaay na lu mat 4 millions Pam Maxtaar a ko jëndi ay yére ceeb bàyyiwul dara fa tabarakallah ñu dem mu distribué ko ci mbokk yi nekk foofu bokk na ci bi mu ñibbisee ñu gàmmu ba pare ci lañ gàmmu ba ca suba ga ci la ñëw dakaar mooy mujjug demam Tiwaawan ba niñ ko fa yóbboo denc ko fa fii la ñëw ci kër gi waaye li ci yéeme kër gi la binde li mu wax ne yàlla man maa ngi ñëw bu ma boolee kenn man Abdou Aziz tàllal naa la sama loxo sama jëmm ji kenn doyuma ci du kenn du seexu Cheikhouna Tidiane du yonent bi ni ma ko soppee tey nag yàlla yow laa waxal xëccee ma rek indi ma sawet soo paree ci man nag boole maag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alxames la ko def ajjuma samedi dimanche fii ci biir néeg bi génn àdduna julli ji na juma Cheikh El Hadj Aziz fii imam Cheikh euh, Baye Sadikh Ndoye ci keroog fii la jullee ci jumaay gël tàppe ji li ci yéeme julli ji na njël zawiya Cheikh El Hadj Malick taxi R18 la ñu gaare fii mu dugg ba ci biir kër gi mu dem zawiya ba li ci yéeme soxna si mooy góor gi keroog xëy na dem ziyaare almeeru dakaar yépp amul fu mu duggal yoo fa fu nekk góor gi dem na fa li muy dugg siwaat kër gi midi la Moustapha saw mooy professeur Moustapha saw mooy docteur am ñëw ne ko papa sonn nga daal ne tëj leen bunte ngeen bàyyi ko mu ne fi ma toog ci néeg bi wallahi alazim mu ne ma am naa yéene dem jumaa waxtu julli jot ba mu des 10 minutes ma ne ah comme dafa ne woon bu waxtu julli yi jotee nañ dem julli ji ma génn jàppi ab lu fi des ndekete boobu gur gi yeewu na ba jàpp ñëw julli si jumaa kon Cheikh Al Hadj dafa doon li ma la wax ne jëf ji fa tabaarakallaahu dafa jëf roy yonent bi ci wax ja ci lépp rek ci nag tabe kuy tabe Cheikh Al Hadj Abdou Aziz da gën a tabe 2017 maam Abdoul Aziz Sy Dabakh moom mi nga xamante ne moom lañu demoon këram googu nga xam ne sa gël tàppe la mhm. te nee naa léegi yëf yi di si doy waar Aïcha kër ga ka nga xam ne moo fa nekkoon mi maam Ousmane Sy di caat moom Abdou moom moo wàcc liggéey démb ñu doon def nag waxtaan eh, bërki démb bañ fa demee di waxtaan jot ñu woon gisante ak moom waxtaan ak sëñ Lam Tooro ak imam ñang nga xam ne moo nekk foofu sa kër ga Euh, ñu waxtaanal ñu si mam Abdou xamale ñoo mam Abdou ñu gën ko xam xamale ñu aussi historique yu jàkkaam jooju nga xamante daf ko nisari woon si ba yàlla def bi muy wàcc liggéey fekk mhm. mujjul sotti waaye taawal bi nga xamante ne mooy sëñ Maodo si moom moo ko mujj jëmmal ba mu mujj sotti nga xam ne dafay def aussi fa difa def naa si bil xaq bil xaq kooku lañ demoon seeti ji tey si ëttu këru diine yi waaye di jaale askanu euh, képp koo xamante ne yaay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mhm. muhammadan rasulullah caatawal Abdou Aziz boobu nga xam ne moo génn àdduna mi maam koy ñaanal yàlla na suufu mm-hmm. na lool waaye yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana kooku daal leen indoon Aïcha tey muy maam Abdou Aziz si mm-hmm. ñu waxtaane tuuti kan mooy macha allah 40 ans zéro ndeysaan nekkatu fi waaye da ngay gis yenn saay bu dëkk bi yëngoo mm-hmm. mbaa ñu nekk ci ay jafe-jafe mbaa politique bi yëngal dëkk bi da ngay gis nit ñi dañuy jëlaat ay vidéo am di ko statut ndax dégg naa ci ay jamonoom bu dëkk bi xawee am lu mu mel nag day génn waxtaan ak askan wi. moom mosoon na wax ak mooy mën a wax ak askan wi rek ñu dal. ñu yi. ñu mhm. fi nekkoon ba ñu ne du ñu jàngi grève ba. Mhm. député yi bi ñu waree voté ay loi yooyu yëpp da gis ba jamono ji am a présent comme wax ndax da ngay dara waree am Sénégal rek. Mhm. ñëpp moom la ñuy génnewaat. di ko indi ko def te pourtant moom jamonoom fekkeewul TikTok réseaux sociaux yi. mais ay waxam dagg nañ ko ba jël ko yëpp ñu jël ko dagg ko dugal ko ci TikTok bi ba nga xamante ne fu réew mi na thème bu toll noonu boo xamante ne wax na ci mu mel ni mag ñi daal ay yàlla dëgg la ñoon góor gu màgg euh, ni naka nga gisee waxtaan wi waaye surtout élément bi nga xamante ni jàll na mu ngi expliquer un peu di wax waxu julli muy wane rek euh, maam Abdou ni mu fonkee woon julli waaw xam nga ñoom euh, danoo fekk na nga xam ni seen waajur wu tedd wa ci la nekkoon rek yar leen ci wommal leen ci ñu jaar waaw ndax Sidi Hadji Malick ku ne xam naa ni mu donne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye maam da baax ni menoon ak ni mu doon boolee diine ji hmm. euh, daanaka xàmmiwutoon sax tarixa dëgg la moom li ko ñoroon mooy lislaam ak euh, nit ñëpp bokk mucc hmm. ci tarixa murit ware na ci loo xamante ne digg digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad hmm. waxtaan yi ku gis na ko digganteem ak euh, Cheikh Abdou Khadar seen photo yi barki démb rek maa ngi koy gis kon wàlliw ginnaawam la gën a la gën a mën kanamam mm-hmm. ñoom bu nu wonee ginnaaw mm-hmm. seen ginnaaw lañ gën a mën seen kanam mm-hmm. ndax ñoom du nu dee suñu borom moo ko wax ci alxuraan ñee nit yàlla yi du nu dee ndax boobu ba léegi seen waxtaan tey ak seeni njariñ ak seeni jëf day wéy bis bu nekk day gën a jëm kanam seen tey bu ñëw gàccaal seen seen seen seen démb maa ngi maa ngi leen di jaale Euh, caatam bu baax boobu sëñ Ousmane. Mm-hmm. nga xam ni moom yëngoom ak dalam lépp yonent bi la woon. mu jëloon tànkam teg ko ci. Mm-hmm. yoonu siraatal mustaqim bu fekkee julli nag. Mm-hmm. Euh, képp ku yeewu xam ni julli ëllëg yomal xiyaam moom leen ñi njëkk xool. moo tax nitu yàlla yi. faat benn waxtu jaral na leen seen bakkan. faat benn waxtu rek nga xam ni euh, sunu borom day tëkku sax ñi nga xam dañuy julli te fonk ñu julli. ñi xam bu la neexee julli bu la neexee duñ julli ñooñu la yàlla gën a tëkku sax ñi bañ a julli ndax ñi bañ a julli moom daanaka ñooy yéefar yi rek mm. waaw waaye ki nga xam ne ab jullit la bu ko neexee julli bu ko neexee ni fàtte woon naa julli mm. euh, suñu boroom da leen di tëkku ñoom waneen aw yoon mm-hmm. ndax fu nu mos a nekk kër ga nuy dëkk mm-hmm. jumaa ja nga xam ni moom lañ fay taxawal mooy dàq kër ga nuy dëkk kon wane nen ni lu nu am yàlla ci yàlla lañ koy def mm-hmm. ëllëg yowmal xiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli la ñuy njëkk a malaayka yi julli leen lay njëkk a bu baaxee rek bu baaxee mën nañ laa jëkkal lépp hmm. bu baaxul nag sa lépp buñ ci duggee di ko lijjanti rek da ngay lëj te boo lëjee gisuma la mbaaw parce que yow ma yatazakkaru l-insaanu maa sa'aa hmm. wa burisatin jahiimi liman yaree fa amma man taqee wa ansara ayatan dunya fa innal jannata hiya al-ma'waa wa amma man taqee wa ansara ayatan fi fa innal jahima yal mahwe nee na ëllëg yowmal xiyaam sunu sunu borom yow yatasakaru linsaanu maasin kenn ku ci nekk dana la fàttaliku dana la fàttali foo mus a jaar. kenn ku ci nekk sunu borom dina la fàttali foo mus a jaar ba nga jàpp ni di la contrôler di la contrôler ba nga jàpp ni yow rek la yàlla bindoo. mu ni boobaa sunu borom dina wàccee sawara wu nuy wax jaxiim suñ boroom dina wàcce sawara wu ñuy wax jaxiim sawara soosu day sànni ay ferñeent yu toll ni taax sawara soosu suñ borom di wax ci naa wal naasiaati jaxiim la tudd day sànni ay ay ferñeent yu toll ni taax naan yàlla jox ma ñi la doon moy ma wan ne leen ba bursatin jaxiim li ma yaree boobaa nag am na ñu ko tax a jóg am na ñu ko taxut a jóg fa amaaman daqee wa ansara ayatan dunya ñi nga xam dañoo jëloon seen àdduna jiital ko mm-hmm. sandaane yàlla yi ñu ginnaawal ko mel ni ñoom dañ leen a wàcc ci àdduna ngir caaxaan mm-hmm. ne ci ay mbiri àddina waaw lu ne nga loolu sëñ bi daan laa tastari dunya bi uxra yaa fata mm-hmm. man ba anu rand bi tijaa fa sa yendam dafa wax ni ku jaay ak leeram mm. maanaam ku jaay àddunaam jënde ko àllaaxira bu ëllëgee di nga ko réccu ñooñu ñoo tax a jug sawara sos suñu waroon naan fa innal jaxiima iyal maxwee waaye mu ne fa amaa man taqi wansara ayatan dunya fa innal jannata iyal maxwee ñi nga xam ni danoo jiital seen boroom lu mu def def yu fi àdduna tamit fexe nañ ba jiital yàlla ndax kër gu mujj ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee moo gën kër gu njëkk gi kër gu njëkk gi mooy àdduna kër gu mujj ga mooy yowmal xiyaamatu akbar wala laaxiratu xayrun lakk mi na loolee kër gu mujj gi moo ëpp ci yéen euh, doole kër gu njëkk gi ndax kër gu njëkk gi day jeex takk yi ñu fi indi day jeex takk doomaa dama war fee liggéey yowmal xiyaam mi dul jeex kon euh, ñoom wane na aw yoon ba tey heure bu ñu jëlee micro di wax ci gàmm yi mbooloo di leen déglu li leen di delloo ci yàlla mi nga xam ni ci yàlla lañ jóge woon te sunu boroom moom boo ko njëkkee moo la njëkkee boo ko boo ko mujjewutit moo lay mujjee kon boo muusee da nga ko war a njëkkee mujje ko li ma bëgg a leeral foofu mooy nit ki ba mu nekk ci biiru waajuram moog yàlla la woon kon yàlla njëkk ci moom mm-hmm. foofu moom xat na xat koo xam ne te yàlla rek ku fa doon fekk daan ko organiser ay mbiram kon yàllaa ko njëkke bu nekkee ci àdduna fi muy mane war naa mën a jiital boroomam ci li muy def parce que bu jiitalu boroomam ci li muy def sunu boroom ma ko njëkkee moo koy mujjewaat loolu lan amoon lu ci doon leeral kon yàlla ko yàlla dooli leer dooli ko njëggal gisale ko baayam yu tedd yooyu te njaboot gi la ca desit yàlla barkeel ko ne ci jaay fëkk ne ci activité yi fu ne nga dugg fa lu ne nga lijjanti ko mhm. fàtte julli juróom soo ñaaw mag leen bi fay naa la Aïcha loo def mbaa yaa ngi <laughs> bàyyi la nga nuyoog mbokk yi nuyu naa leen bu baax a baax man lay sama magu bopp <laughs> nee naa nañ bàyyi di ñu boole de chaque jour mu ko te ñëw fexe ba bàyyi. <laughs> gis nga gis nga di jox cër bu baax nag oustaz maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox cër di la ziar di la jox bu baax sa wàccuwaay euh, di la ñaanal yow it yàlla na xam-xam bi wér euh, di rafet rafetlu bu baax liggéey bi euh, di leen ziar bu baax a baax yéen ñëpp ñi ñuy seetaan Aïcha de retour comme ne nga toogaay bi daaw nga ko waroon am <laughs> waaw mi ngi noonu kon nag fekkee déwén dañuy <laughs> defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal dalal ak jàmm. macha allah merci beaucoup. Petaw lan ngay dolli ci élément bi laataa ñu tëj foofu bu ko defee nag ñu dugg ci waxtaan wi ànd ceeg oustaz la. mu ngi noonu rek comme ni ñu koy defee rek chaque weeru koor incha allah dinañu demaat si yeneen kër diine yoo xamante ne. ay góor yàlla ya fa nekk ñoo jéem a xam un peu si seen i jaar-jaar xam aussi seen histoire bu ko defee dina gën a baax dina gën a ñaax xale yi parce que dégg ngay Fawzeyni li mu expliqué si si wàllum julli maam Abdou mu jaxaloon ko ba mu nesiir ne fii dama ko bëggoon a def jàkka def dama ko bëggoon a def jumaa mm. yàlla def ba mu jóge fa bayaal bi dendoon ak moom moom la maam Maodo jënd fexe ba li papaam ni séeroon mu àggale ko donc mu nekk loo xamante ne initiative bu rafet la comme ni ñu koy faral di waxee rek ku bàyyi mébét ku ne mu àgg sax njaboot gi nga fi bàyyi ñoom ñoo farlu te eh, simaali njaboot gi farlu nañu ba defal ko la mu bëggoon kon ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na ci kawam di jaalewaate képp koo xamante ne nii yaa nga bàyyi ko tiwaawoon ndax xam ngeen maam Ousmane mi fa wàññeeku démb ci guddi muy caatam ba te nga xam moom kër ga gël tapé ñu ngi koy jaale bu baax a baax di jaale ñëpp may jaale maam Ousmane Ndiaye nag mi nga xam ne mooy sama buntu ci kër ga ndax moom moo ma yombaloon émission bi bi keroog ma woo ko ñu accordé ma mu ñëw def fi émission waaw ñu ne ma mu ngi ci biir yaram bi xaw a sutante ndeysaan ndekete yoo avant ñu koy teg sax fekk dina wàcc kon ñu ngi koy massawu mu ngi massawu ñëpp di leen jaale bu baax a baax ay waaw jërëjëf a Euh, mën na ko xëy na émission bi moo koy def te bu boobaa dinañu wax lu bari ci ki nga xamante ni moo di euh, maam Abdou Aziz da baax mm-hmm. da baax dafa baax yàlla yàlla yokk ay leeram ah? macha allah <laughs> alors bu bàkk bi noppee léegi léegi rek ñu dikkaat ànd ak Fawzeyni gën a yaatal waxtaan bi De retour sur Euh, fàttali leen 19h30 di ngeen am li nga xamante ni moo di xibaar yi à 20h vous aurez la grande édition euh, avec Germaine mais en attendant ñu ànd ak Fawzeyni Fawzeyni tey ci lan la ñuy waxtaan. Euh, ñu bari dañ ci am ak njaaxle te alxuraan moom dara manqué wul. Mm-hmm. ci ñi nga xam ni sunu boroom dafa wax ni ab jaam bu xëyee ba jant bi sox. te ñaanuma dama koy mere pare ñoo xamante ne dañuy ñaan bu ñu jullee dañuy ñaan yàlla seen soxla waaye day mel ni nin koy ñaane duñ ko amee noonu léeg sax nga dégg ko naan ñaan naa ba sonn <laughs> daal di xaaj waaw wala nga gis koo xamante ne daay dem ba tàyyee la ñaan sax day julli rek ñu bëri dem baqiyati saalihan sax du ko def te ñaan ki koy def bëgg suñu borom nangul ko dafa am nu mu war a doxe kii waaw hmm. dafa war a am nu mu war a doxe léeg nga gis koo xam ne day bari xam-xam sax waaye bu ko jëfee bu ko jëfandikoo hmm. du ci am résultat hmm. nga gis koo xam ni xam-xamam sax du bari waaye bu ne allahuma suñu borom wuyu si ko gis naa ci koo xamante ne daanaka faatiha rek góor gu mag la mm-hmm. ma nga Tuubaa bax daan léegi nag nelaw na mm-hmm. kii wut wiisaak kii ñaan fan wu gudd ak mm-hmm. kii ñaan wërsëg ak kii ñaan liggéey ak kii ñaan am doom ak kii ñaan jëkkër ak ñépp faatiha la leen di di liggéeyal nu ne la koy bind nag waaye lu mu la ci jox boo demee nga gis ko kon loolu du ca moom maanaam du ci sax faatiha gi muy joxe waaye ci moom la ndax faatiha gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàng mooy ba tey gi ñuy jàng mm-hmm. soppeekut kon nit ñi ñuy wute mm-hmm. moo tax nag ñu bëgg cee leeral euh, ginnaaw bi nu nuyoo mbokk yi ñuy seetaan seen mbokkum jullit mu nuy wax Mouhamadou Lamine Niang Fawzayni borom secret yi bëgg cee leeral lu am solo li ko laabirante rek ak yéen ci xam-xam bi nuy wax ci xilmu ñaan xilmu ñaan nag ñaan mooy ëmb na lépp rawatina kiy ñaan ci yàlla biñ ci gëstoo aslëf te gis ni xam-xam la boo xam ni nit ki mën na cee jariñu àdduna nit ki mën na cee jariñu alaaxira ndax yonent bi nee ñaan mooy ngànnaay jullit adwa usilaa ul ñaan mooy ngànnaay jullit mu niwaat adduwaahul muqulu xibaadaati nee na yonent bi nee na ñaan mooy yuqub jaamu yàlla nee na adduwaawul huwal xibaadaati nee na ñaan it mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla ginnaaw ñaan nag mooy dëgg-dëgg yàlla kon kiy ñaan war naa xam lan mooy lan mooy ñaan ak lan mooy sarti ñaan ah, te nit ki lépp lu muy def te xamu ko sëriñ bi nee na bu ragalee gàcca na ko teel a bàyyi waaw lépp looy def rek xam-xam bu mu war a doon da nga caa war a jiital xam waaw moo tax sëñ bi daan ni sëñ bi daan ni yaa maxsaral subaani in xiftum xajal fa xaddimoo taaluman ala amal nee na nit ki lépp lu muy def rek ragal ci gàcce maanaam na ko jéem a xam ba pare kii ñaan war naa fexe ba ñeent yi mu saxoo ko mm-hmm. bi ci njëkk mooy warta ñaan ku dul yàlla loolu sax jullit yépp la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant waroo ñaan ku dul yàlla léegi boo bëggee ijaaba ijaaba mooy boo waxee ci salaat yi yàlla wuyu la ndax nee boo dee ñaan sunu borom borom bi subhaanahu wa taala day yebal seydina jibril ni ko kii ñaan xoolal yére yi mu sol ba xam lew na wala lewul malaaka yi bu ñëwee bala ñu laa may dina ni yàlla yére yi bu nee bu nekko ko leew na sax du tax mu may la dana ni xool leen bërëb bi mu toog ba xam laab na wala laab moo tax la moo tax ñaan ñu koy ñaane ci bërëb bu laab bu nee ko na sax léeg-léeg du tax mu may la danaan xool leen biir bi lekk gi ci nekk te reesagul ba xam riibaa la wala du riibaa ba xam leew na ko alal ja fa mu ko amee malayka yi bu buñ ko xoolee buñ nee ko leew na mu ne xool leen xol bi ba xam yéene na ci ñëpp jàmm am na xal buñ salim mm-hmm. buñ nee ko xol bi de biñ ko xoolee lu baax rek la ëmbal mbokkam yi mu doo wax ni kooku moo jaramay mm-hmm. kon kii ñaan war naa xam ñeenti yooyu lu mu am am xam-xam war naa jiital lool bi ci topp muy làmmiñ wuy wax lu dul dëgg ñu baal ma ci wax ji muy fen sunu boroom lu ko may walla néew na lu mu ko may parce que alxuraan dañuy waylun lil mukazzibiin am na xurwa ne digg sawara tudd nee na sawara sax day musulu ci xur woowu ndax tar gi mu tar nee na bii na ñeel ñi nga xam dañuy wax lu dul dëgg waaw te nit ñi bu ñu gisoon tey koo xam ni day njaaloo ak soxna si jàmbur léegi maanaam ñu wërale ko dëkk bi buñ ko bettoon ak soxna si jàmbur te bis bu ne nga toog ak kuy wax lu dul dëkk te sunu borom nee na ñeen fukki njaalo mooy taxaw taxawaayu benn fen ñeen fukki njaalo hmm. nga njaaloog ñeen fukki soxna yoo tokkul tan doon ay jabari jàmbur mooy taxaw taxawaayu benn fen bu dul dëkk hmm. ndax fan fen day yëngal aras moo tax ñu ni gémmiñ goo sa mooy yàlla loo ci ñaan yàlla sunu borom dana ko nangu nit ki bu jëlee gémmiñam fóon ci kum ci warta fóon rek mos naa mooy yàlla ci gémmiñ googu ndax yàlla da koo tere waaw ku njaaloo dañ la war a dóor téeméeri yar waaw dañ laa war a dóor téeméeri yar bu dee góor gi tamit dañ ko war a dóor téeméeri yar bu fekkee nag dóoruñu ko yonent bi nee na lu mu tuub lu mu tuub tuub balaa dugg aljana di leen ko ko dóor dinañ ko dóor waaw te te te ñeent fukki njaaloo mooy mooy équivalence benn. mooy taxaw taxawaay benn fen. allah akbar xëy. allah xëy suba ba moon jot. wax lu dul xam nga xam nga xam nga fen. Mm. bu nekkee ci euh, réew moo gis li ko yàq. Mm-hmm. ñeent la muy ndaw lu nangut a liggéey. Mm. jong ma ju nangut a sëy yi. Mm-hmm. Ah, baax na. ak maanaam ku nekk ci réew mi mën a fen mm-hmm. ndax tey su ma la diggoon cinq cent mille ni la mm-hmm. dinaa la ko jox mm-hmm. te bi ma la koy dig xam naa ni du ko def yow nga dem commande say yére commande mbir daal ni fausé ni daf may jox ba ñoo ñu jox la nga ñëw joxuma la fausé naa la kooku tamit la ma yaakaaroon ci boo ko fayee fausé nga ko kooku tamit fausé na wata waa këram coow moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni fenn képp ku koy def doo dugg aljana am na ñoo xam ne nag dafa bari ci nit ñi ñoo xamante ni lu wax rek du dëkk. am na koo xam ne sax daan la buy wax ah xanaa du waxee sa waay nga ne waa mu ne ah, ay waxam da jërte gëm bu la waxee neel un rek. waaw ab jullit yonant bi sallallahu alayhi wa nit ñëw na ci moom ab yéefar mm-hmm. ni ko dama bëgg a tuub mais seen diine ji dafa metti oyofalal ma ko moo mën cee dugg. waaw ni ko parce que man damay naan sàngara te yéen seen diine ji leen koy tere. damay dem ci ay jabaru jàmbur di ak ñoom te seen diine da koy tere. damay jël alalu jàmbur te seen diine ji da koy tere. damay fen te seen diine ji da koy tere. boo ma ko oyofaloon nag man mën naa ci jéem a dugg waaye lépp mënuma koo bàyyee bàyyeendoo ndax ba mu juddoo ba léegi loolu mooy sama dund yonent bi ni ko yu bari de mën nañ la koo bàyyi oyofaral la ko ba mu des benn yonent bi ni ko demal ci jabaru jàmbur ko mënuma bàyyi lépp hmm. mën ngaa jël alalu jàmbur ko mënoo koo bàyyi mën ngaa naan sàngara te mënoo comme euh, mënoo koo bàyyi waaye fen moom ku ko bàyyiwul bokkoo ci diine ci hmm, comme diine ji ñu ci war a génne woon nar nañoo bari nag kon kii fen hmm. na moytu di ñaan parce que li muy ñaan moom yàlla du ko yàlla du koy dummóoyu waylu lil mukasibiina nag euh, soxnaay saa hmm. bu loolu nga xam ne moom def mais ñu leeral mooy ka nga xamante ni la muy wax du dëgg te leer na ko ni que lii muy wax du dëgg waaw loolu mooy fen bokkut ak fen day ñett mm. wax dëgg leeral na lu am solo li nga xam ne yow danga ko wax te bi nga koy wax nar nga ko waaye dangaa dem mu fausé nga ñëw nii daa fausé loolu du fen waaw loolu amoon nga yéene ji te mm. innama ahmalu bi ni niyaati mm. yéene la yàlla lay fay mais ki nga xam ne li may wax xam na ni mënu ko mm-hmm. loolu bari na ci jigéen ñi ak góor ñi ndax sa doom sa doom ak góor ñi sa doom bu fekkee yow dafa ne ci kër gi uh-huh. sa doom ne ci kër gi am ko koy nga ne ci kër gi sa doom ne ci kër gi am ku koy seet uh-huh. am ku lay seet nga ne ko nekku nekkuma fi loolu koy wax bari na. yaa ngi léegi xale bi yaa jàngal fen mm-hmm, yaa mm-hmm. hmm? <laughs> nekku fi xale bi moom day jàpp ni fen aayul te fen dafa bokk ci bàkkaar yi gën a yées mm-hmm. bokkut ak bi nga xam ne nit ki dañ koy dàq yor ay ngànnaay bëgg koo rey mm-hmm. mu ñëw dugg fii ci sa sa sa sa rondeel nga génn dajeeg ñu koy dàq nga xam ne bu ñu ko jàppee danañ ko rey. nga sauvé ko. nga leen ñu leen amul waa ji dugg fii. moo leen bëgg a jàpp mm-hmm. pour rey ko nga leen nekku fi. Mm-hmm. xam nga mi ngi fi. mais fen woowu fen wuy defar la. waaw doo ci am bàkkaar. waaye waaye nag Sëñ Tuubaa moom dañuy yooyu yëpp du ma ci def benn. <laughs> maanaam fen maanaam suñu borom xam nga fen la nit ñi ndax daa am dëgg rek. xam am na fen ko ñoo yem dëgg. wa wax na dëgg. parce que par exemple nañu woo Soña. Mm. fekk moom départ wul këram ñu ne soo foo nekk mu ne maa ngi waa ci télé bi xam nga ay fen fenaan yu ndaw la. te moom mooy këram ah, waaw léegi fen yooyu dafa diis ci yàlla. Ah. bari na bàkkaar yu ngeen di def. Ah. maanaam mu oyof lool ci yéen. Mm-hmm. te diis gan ci sunu borom. Mm. waaw maanaam ñoo yem dayo ab jullit dafa war di wax dëgg lu mën a xew mm. man sol naa ab yére am koo xamante ni daf maa wax ni ma sëñ bi yére bi xanaa man nga koy jox comme ni ñuy def rek boo sañsee ma jël si ko ma yaakaar ni day kaf mu ni ma ma ni ko jël ko ba ma xëyee <laughs> mu ni asalaamaaleykum ana fawsey ni ma yére bi laay jël si te wallaay aussi yaakaaroon naa ni day damay tooñ rek dama koo lim ba mu jekk defal ko ko ci mbuus jox ko ko jox ko ngir bañ mu waaw léegi Euh, comme dañuy waxtaan en général ñu ngi njëkkee woon si ñaan ñëw ci fen mhm. bëgg naa ñu taxaw tuuti si ñaan waaw xam nga xam nga ñaanit mhm. boo yoree euh, melekaan yooyu ma wax ni nit ki moom la war a yor doo ko mën a ñaan suñu borom suñu borom wuyu ko ci nga xam dañuy yëngu ci ilmu asrar maanaam ilmu asrar mooy xam-xam bi nga xam ni dafa jëm ci alxuraan ndax sëriñ ñett la mhm. bi njëkk sëriñ bi njëkk mooy sëriñ bi jàngale alxuraan sëriñ boobu la yonent bi alayhi wasalaam ni ki gën ci yéen mooy ki xam ba pare di xamle ki xam ba ki xam ba xam xam jeex nag alxuraan ci gën léegi sëriñ boobu nag mm-hmm. moo jur sëriñ bi nga xam ni daa dem ba doon seexu tarxiya seexu tarbiya comme ça sëriñ si nga xam danoo dem bay yóbboo ci yàlla nit ñi di mm-hmm. jébbalu ci ñoom Mm-hmm. naan aslamtu nafsi mm-hmm. léegi sëriñ boobu sax sëriñ bi nga xam ne mooy jàngale alxuraan moo ko jur ndax sëriñ boobu ca daara ja la jógee mm-hmm. xam nga sëñ Tuubaa su suñ koy wax su xel yi mën naa dem ci si Ahmadou Bamba baayam Maam Mor Anta da koo bàyyeeg daara ji muy jàngale di jàngale di jàngale ba yàgg mu mu ni taxaw leen ñëpp taxaw mu ni ku fi jàng rek indi woon mën ngaa delluwaat sa kër képp koo xam ne li ma bëgg nga bëgg muy sóobu yoonu yàlla nga mu ànd dem ci yàlla mm-hmm. loolu indi ay coow boroom ñi nga xam ni xamuñu fi muy waxee tas dem ñibbi ñi xam ni ñoo ko topp mu yóbbu leen ci yàlla moo tax ma ne sëriñ bi nga xam ne mooy ndayu sëriñ si mooy sëriñ bi jàngale alxuraan sëriñu daara mm-hmm. mooy dem ba toll foo xamante ne mu yóbbu nit ki ci yàlla léegi beneen sëriñ bi ci topp muy sëriñu asraar sëriñ bi nga xam ni day nit ci alxuraan di jàng di jàng ah dem ba nit ñi di ñëw ci moom naan ko sama doom ji ku bëgg kiis xel mi dafa naqari mm-hmm. muy dem ci alxuraan lu ci mel ni iqra wa samaa'i wa taarixi xeet yooyu mu koy bind di ko booleeg ay lem ak i tàndarma di ko jox xale bi nga xam ni xel mi dafa naqari mu di ko naan xelam di léegi Fawzeyni fi ma fi ma la bëggoon a laaj mooy xam nga boobu ba léegi ñu ngi wax mais ci alxuraan la ñuy sukkandiku mm-hmm. te réew mi dafa am yeneen i xeetu xam-xam yi nga xamante ni mu ngi fii am na ñu nga xamante ni dañuy liggéeyee xam-xam bu ñuul mhm. du mooy fétiche wala mhm. Mhm. est-ce que ñaan lu ci xam-xam bu ñuul dagan na dafa araab dafa araab waaw ab jullit fi mu war a ñaanlu muy sëriñu asraar sëriñu ci alxuraan la koy jëlee alxuraan mooy ñaanukaay sëñ bi nee yow mi wër lu doy nga ñëw fekk alxuraan doy loo ko fekk nga lu doy nga doyloo ko waaw léegi nag sëriñ ba ca topp muy sëriñu tariix boo nee sëriñu asaraar ba pare danga naan sëriñu tariix. tariix mooy lan sëriñu tariix doo ko dégg. mooy sëriñ bi dina ci koñ bi. Mhm. lal ak basangam. day joxe sunguf yi. di joxe ay sunguf. Mhm. yoro ay pétaaw ay xànc sëriñ boobu asraar la doon jàng. muy xam-xam bi jëm ci alxuraan. mokkale ko mu gaaw beeru. wut ak sijaadaam nekk fa. ñu naan euh, dafa yor sungur su muy joxe. Hmm. loolu sëriñu tarayax la dafa yàkkamti. Hmm. yaa ngi dégg boo demee léeg-léeg ñoom ñoo yor ak mer gàddu ñu jël sa xaalis ba nga ñëw ñun tuxu la tuxu na hmm. loolu sëriñu tarayax boo ko laajoon sax moom diineem du la ko wax. beneen euh, boobu nag aay na waaye bi ko gën a aay mooy kiy yëngu ci fitis. d'accord zulmani nga xam ni euh, biteel yi niy teg ay dereet ak lu mu gën a xeeñ. gën a am sobe mën na noo teg sax biteelu sàngara di ko defar di naan di liggéey